tey nag bis la boo xam ne histoire daf koy bind ndax ku ñëw stade gis mbooloo mi fi ñëw ak xale yi doon football diggante waal daan ak yëgoo ñu football ci jàmm waal daan gañ ko ci jàmm loolu dañ ci am bu wér a wér wér mais li ma gën a neex ci bis bi mooy sama kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw taaral bis bi dama ciy jiital Pape Moustapha Diop Papis mu ngi nii suma ginnaaw yaram moom dafa sutante mais démb na mooy yónnee li war a dem ci bis bi yëpp toog ba mu yàgg mu woo ma ne ma sama xel daal mooy moom ma tëdd ci lal bàyyi la yow rek nga dem estar loolu muy lu rëy ci man ndax première édition bi mu amee dafa ñëw ànd koog man ñu ngi ko footballé ci boulevard mbooloo mi mu def ci lépp tey deuxième édition bi am mu ñëw defaat loolu ma teg ci monsieur le maire monsieur ministre Galamba di suma xarit di jaraafu dëkk bi yebal fi délégation bu am solo teg ci enveloppe moom it ñu koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel ndokkeel bu wéri wéri di ko ñaanal parce que ñun ñu lu dul Mbàkke képp kuy jàpp ci Mbàkke rek ñun ñu ko koy defal ma teg si nag kenn koo xam ne dafa nekk suma xarit muy Birima Mangara Birima Mangara di nit ku baax keroog bi yàlla dogalee ñu jàpp final bi dama ne ko yow du ma la def parrain dama lay def invitation d'honneur mu am ci mbégte bu baax a baax composé délégation boo xam ne ñi fi yabal ñëpp maa ngi ñoom àjjuma ak samedi la ndax général Jënd Gueye sëñ Modou Xaasim su ma tuddee ñooñu ñi ci des dama leen di bañ a tuddaale ñoom ñëpp Cissé Gueye su mag la suma xarit la mais Birima li tax ma taxawaat ci moom day nit koo xam ne nit ku baax la nit ku am kóllëre la nit ku mën a sëqanteeg nit teraanga te du ko wax kenn li may wax Ablaye Diop a fi mën na koo seere ndax heure bu màggal Touba jotee wala dara xew ci région bi suñ demee ñu ne moom ñooy bokk benn ndab bu ñuy añee muy nit ku am couleur Matar Sarr seen meew di suñu rak di suñu xarit Aline Diouf auto école ak Aline Diouf adjoint maire Morane Gueye kii yi nga xam ne nag moo nekk suma wet di son yi bu mbeng suma jarbaat la mais day suma xarit di dundee sport trésorier général Ablaye Fall di homme de confiance am di léppam sooy quatre heures et demi Dakar la ko fekk mu yor otoom ne ma match bi nu mu mën a def dama ñëw fekk si ko kon bu ñëwee teew moom it dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal waaye daal ci gàttal population Mbacké képp koo xam ne ñëw nga stade amel naa la cant amel naa la ngërëm di am mbégte nag bu baax a baax fi na a wax du yomb waaye nit ñooy comprendre xoolal nag moom dama koy ñaanal ndax wax dëgg yàlla koo xam ne lépp lu baax wala lépp lu rafet ñu yéene la ko aw ma fayam dama koy ñaanal ci barkeb Serigne Touba ak sëñ Massamba mi yaakaar yàlla ko yàlla gën a guddalu fanam gën koo wéral ndax lii bi ma koy tuddee booba munuma dara xaw ma dara waaye ba tey bi mu tëggaatee tournoi ma yow laa koy nan ma ko ñaanal bu baax a baax di ñaanal suma xarit Adama jàng Adama Dieng wax sa xalaat mi ngi di suma xarit di suma lépp damay bañ a lim daal di desal waaye Mbàkke bool gépp sant naa leen gërëm naa leen di wax mention spéciale Pape Moustapha Diop Papis ak monsieur le maire Garaba ak Birima Manga ak Aliou Diouf at école Aliou Diouf adjoint maire moo daan ngay adjoint maire ajaratu Maram Mbaye nen na Ndiaye ajaratu Soxla Dieng monsieur le maire Abdoulaye Ka El Hadj Omar Youm waaw ak Cheikh Diouf Seck suma xarit suma lépp maa ngi koy bëgge moom it di ko ndokk final bi gën a xam ne dafa yàggu yoon ndax final bi heure waroon naa fekk ñu joué ko final bi ba joué waat yeneen i final bi yi koy football yi maa ngi leen ndokkeel ci seen patience ak seen dal ndax tëgguñu ma benn yoon pression tey bu leen neexoon mën nañ ko organiser bu yàgg a yàgg ndax final boo xam ne avant élection yi la woon ca campagne ba ba jooni yàlla tey ñu koy déroulé ba mu egsi tey loolu dañ ci am mbégte di leen ci li nga wax it Mbàkke des ay jéego yu bëri yu ñu war a def mais dañuy ñaan yàlla état bi nga xam ne moom fi ñëw comme bees li mu fekk mu mottali ay jéego mu gën a amalee lu gën a gaaw ndax Mbàkke bëri na ay infrastructure yu bëri yu manqué te ñoom comme ay nit ñu bees la tey lañ fi am téeméeri fan duñ mën a xuus ci ñoom mais dañ leen ñaax pour ñu gën a mën a taxaw gën a xool lu jëm ci Mbàkke mu gën a suqali ko rek mu gën a waaw fi ne Mbàkke moom priorité moom li ma xam ne moom daar daar li nga xam ne sëg yu dama koy jooy mooy caserne sapeur pompier moom loolu moom ko war a am ak loolu Mbàkke daf ko soxla lu mënul loolu moom daar daar mënul ñàkk